Eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba radiyallahu taala anhu nee na ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem di sant Cheikh Amadou Fadil moo booleeg Serigne Touba sant yàlla ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem di sant Cheikh moom Cheikh Anta Mbacke mi waral ñu daje fii nga xam ne teraanga ju rëy gën a defal Serigne tuba eh, moo tax ñu daje fii te di ko fàttali ko Serigne Serigne Mouhamadou Mamoun suñu turandoo bu baax wala Serigne bu roqee boon kër gi sant di ñaanal Cheikh Amadou Mountakha xalif général li mu mu yàgg fi loolu te wér li muy liggéeyal ak li mu bëgg a sëriñ bi lépp mu àggale ko ci sago te nu fekk te ànd ko ak moom ñuy teg nuyoo bi ak ziyaare bi ci loxol maam Cheikh Anta mi mu tegal ñu ko ci loxo sëñ Mor Fati muy xalifa maam Cheikh Anta ak sëriñ Cheikh Abdoul Khadir muy xalifa sëñ Moudou Mamoun ak njabootu maam Cheikh gépp buntu buntu kër Gaawaan yëpp ak buntu kër yi maam Cheikh Anta buntu kër sëriñ Moudou Mamoun yëpp leen ziyaare leen leen ndokkeel di ndax bis bi sëñ Touba la moom Cheikh Anta ko woote woon moo ko taxaw woon moo ci doon teral sëñ Touba ci ñibbi seen kuréel googee maa ngi dégg sëriñ Fallou Galas si mu baax ñu barki dem muy wax naan màggal gi mooy màggi moo mag ci màggal yëpp ndax ba mu toon gën a màggal du am te loolu wax na dëgg ndax bis bi dana wax ne mën nañu ko tudde bisu victoire mën nañu ko tudde ay de nasr mën nañu ko tudde ay de chakr ndax ba amutoon dara du ko jar waaw ndax dañuy wax kon nag bu demoon bu demutoon musiba am bu dellu siwutoon musiba ak balaa am far waxuma laa nag bu dellu siwutoon kon nag ndokk bi mu demee ba dellu si ba indi yiw woo xam ne ñëpp xañ nañ ci tey ak ëllëg ñu nuyu sëriñ Aliou Dia a a ma yoro mi nga xam ne ku tudd tudd waajur mu tedd xam ko digganteem ak sëriñ Gaawaan xam ko digganteem ak sëriñ Mudu xam nga suñu diggante ak moom bañ na ko ba suñu fal lañ ko tuddee sax far waaw di nuyu mbooloo ñu tedd ji fi teew ñëpp di sant bu baax ci kaddu yu al suñu àll yu di ko rafetlu ndax matale na da ngaa baax rek waaye jëruñ sax ñu jël kaddu loolu doyoon na sëkk ndax matale na kaddu yu mbokk la kaddu yu diine la kaddu yu xel la kaddu yu rafetal la te kaddu gu dëggu la ndax at mooy ni nga koy waxee kon ñu ciy sant bu baax a baax di ndokkeel euh, daaru salaam gépp di ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel murit yëpp di ko tàmbalee ci sëñ nekk ci bopp yoon wi mooy def moom lañu koy defal ndax njokkale njabootu sëñ Tuubaa gépp di fàttali suñu kóllëre ak dëkk bi suñu kóllëre ak maam Cheikh Anta li ci aju lépp ak sëriñ Modou Mamoun ngi li ci aju lépp ndax lépp benn eh, kenn kee tax ñu koy def ndax sëriñ Tuubaa lañ ci màggal kon njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñoo bokk bis bi te koy teral sëriñ Tuubaa islam ngay teral jullit yëpp ngay teral xeet yëpp ngay teral ndax dellu si kii bu amutoon dara du ko jar kon ndokk bi mu amee maam Cheikh taxawee ko nii ñu koy def ci contexte bu réewaat nag dañ ngeen ko

sëriñ Aliou ñu ngi lay sant di la gërëm kàddu ji matale na rafet na tege na ci yoon tege na ci dëggu tege na ci mbokk tege na ci islam tege na ci xam-xam kon ñu ngi leen sant leen gërëm te ñaanal maam eh, eh, mag nag moo ñu mag ay at yu bari lool sa kaar waaye teewul maa ngi koy wax sànq ne ko xam ñu ginnaaw ñu ni xam ñun fii lañ yaroo fii lañ léppi naka jëkk daf ñoo ma sa bàyyi xel te loolu duñu ko fàtte ndax xam dañoo xale du fàtte loolu naka jëkk daf lu mu xat-xat rek lu mu gàtt gàtt bi mu fi ñëw nemonteeg moom siyaare si fàttaliku loola fàttaliku waajur mu tedd bi suñu mu roqee itam ku ne xamoon na suñu diggan suñu Alaaji Fall def naa ne ngir bañ a guddal mooy rek tey daal bi su sant la bi su ñaan la bi su mbégte la ci ñaan nag ci barkeb suñu Tuubaa li ñu ci ñaan xéewal yi dolliku te mbas mi jële ci àdduna si te ñim dal nag wér leen ci jàmm ñim dalagu ñim dalagu te mu bañ leen a dal ci barke borom Tuubaa